bon am si contentement ak euh, je sais pas mbégte pour euh, football du Sénégal parce que bu ñu ko defee aussi defaluñ ko Tëngéej c'est le Sénégal moom moo am ndam ndax tey bu ñu euh, même en tant que doomu en tant que club bu Tëngéej dañu dem en tant que doomu Sénégal et bu ñu fa amee ndam donc dañ koy bokk ak sénégalais yëpp te xam ni Sénégal la ku si nekk war si gis en tout cas koo xamante football du Sénégal wala euh, avancement Sénégal moo intéressé ndam bi war nga ci gis sa bopp voilà après di ñaan Yalla nak mu gën ñu may dal surtout ak euh, wàcce suñu bop baña nagu surtout pour que ligue bi gëna mëna continuer parce que football mom tay da ngay nekk ci kaw kaw bu suba nga nekk ci souf parce que ça va tellement vite li si am solo rek moy nga and ak dal baña yek sa bop ba yaakar ni kenn mëna a téye. waaw ah, discours bi mom jarul won muy. muy gudd wala muy sori parce que juri jour yo xamanteni wax ji soxlawul muy beuri da ngay euh rek histoire bi day dérouleel bopam parce que li nga waron wax yeb wax nga ko jour bi bu joté bo len xolé di nga xam ndax euh, tay ji sen bés la wala déet et bima len xolé xamona ni tay sen tey la donc won wax ji du beuri dañ len bayyi rek ñu dérouler ak sen xalat man mom awu problème mu adversaire ak yu kenn xamul parce que euh, ay tour la tuddu et terrain moom euh, tour bi amna fumu yam voilà tour amna na am li si am solo moy ñu euh, jël suñu temps préparer wu xol adversaire yi lu ñu ak luñu mënul et adversaire bu nek am lu mu gëna foré amna am lu mu gëna faible et bo défé sa analyse ba paré nak di nga mëna xam sa liggéey si naka nga koy orienté